Phoenix sama gars yi tey nag ñëwaat nañ ci beneen vidéo ah comme niñ koy defee rek non limite la saasu ne dañuy génn daje gars yi ci mbedd mi laaj leen li ñu leen di laaj nag c'est simple nañ dem. Euh, ñaata centimètre la góor war a yor pour satisfaire jigéen ci kaw la. y ah la wara yor pour satisfaire jigen ci kaw lalam ñaar centimètres eh dem euh, man man ma 2 cm 2 cm 2 cm wa 2 cm wa 2 cm et demi combien de centimètres faut-il à un homme pour satisfaire une femme au lit ah ça je sais pas trop non je sais pas trop parce que c'est pas ces choses-là. Tu n'es pas marié. Non. Tu n'es pas en couple Non. Tu n'as pas un copain Non. Comme ça Tu es toute belle comme ça, tu, tu n'as pas de copain Non. Ah bon Oui. Mais environ, selon toi, il faut combien de centimètres ou bien est-ce qu'il faut de la dimension pour satisfaire Je Je sais pas. Ah bon. <laughs> oui. Désolée. y centimètre le goût pour satisfaire Il ci kaw lalam. y centimètre goût de war pour satisfaire si 3 wala 4 c'est bon pour moi. waaw quoi 3 ou 4. Ouais, mun naa natt sama bopp parce que xam naa boo 3 wala 4 tu peux faire mieux. 3 ou 3 wala 4 noo ma mesurer. ça. Euh, On ma doon lu toll nii Ouais. c'est bon merci. jàpp nga ni dina ko dina. waaye nii ku ko am tu peux faire tu peux faire bon trick. Euh, ñaata centimètre le góor war pour satisfaire Jigen ci kaw lalam. Hmm, non xaw ma ci dara <laughs> centimètres la góor war a yor pour satisfaire jigéen ci kaw lal. ah loolu nag wax dëgg fa yàlla moom loolu dese na ma leer. yow lan nga jàpp moom moo koy def. <laughs> ah man <laughs> ah 7 centimètres. 7 centimètres 7 centimètres waaw. boo ma doon wan 7 centimètres sa loxo noo noo ko noo ma ko yore. <laughs> li moom ëpp na 7 centimètres. gën na tuuti 7 centimètres quoi. yow pour yow ñaar centimètres. 7 ah nan. nii rek. di baax na. waaw ah, fii mu tool ba nii baax na ah. ah bon donc yow jàpp nga ni lii mën satisfaire jigéen ci kaw ah bien sûr. ah oui mais tamit le durée, quoi. na durer waaw compte. bi oui. ok ok merci merci de rien. ñaata centimètre le góor war yor pour satisfaire Jigen ci bon ah franchement mënuma wax ñaata centimètre mais euh, taille bi aussi ça compte beaucoup. Wa taille bi compte Le tout tuuti moom muy loolu parce que euh, boo seetee jigéen ñu bëri ñoo ngi fi tey di def euh, adultère c'est c'est à cause de de de sexe bi sexe bi bu tuutee da leen di pousser ñuy dem feneen di rechercher benn sexe bu bu guddoo donc euh, jigéen war na mën a xool daal bu baax a baax avant muy engagé ak ku góor kii taayoo sexe bi. c'est hyper waaw c'est hyper intéressant. selon toi yow dimension bi ñaata la war a taille ah bah, Je sais pas parce que ah, mesurer parce que y a certaines filles qui ont 18. non 18 c'est trop mais euh, entre 14 et 16 c'est bon. bon Je ah, 14 ou 16 c'est ça le problème. Euh, bon comme ça hein, comme ça c'est bon. comme ça c'est bon c'est bon et toi. dama bëggoon xam euh, centimètres le góor war a pour satisfaire jigéen ci kaw lalam. Euh, je crois que nombre de centimètres bi une importance je crois que performance bi moo ëpp importance. Ah bon ci le ma foog quoi. la taille. non peut-être elle, peut compter mais c'est pas c'est pas la priorité. environ. non je sais pas honnêtement <laughs> parce que je ne tamit je crois pas que y na war am euh, taille boo xam ne moom la ñuy ne moom mooy bu baax bi en dessous de ça mooy bu bon bi wala beneen bi mooy. certain yàlla dañ ne ñoom ay 18 17 euh, dix sept. mooy mooy ak sa ak sa kii langage ak peut-être ak li muy li mu soxla waaw merci jaajëf. laaj ñaata centimètre le góor war a yor pour satisfaire jigéen ci kaw lalam. <laughs> laaj nga ma lu ma xamul de. non selon toi supposition supposition. ah je sais pas.

mais yéen si du ngeen toog sax ngeen xalaat jàpp ne que man bu ma amoon jëkkër wala par exemple la si sort euh, bu ma sañoon lii la dina yor lu toll nangam pour mën ma sax. <laughs> non non non. ah. non non. ah bon yéen xalaatoo leen. léegi bu ngeen demee ba am jëkkër am benn boo xam ne comme dunku ginaar lay toll nu ngeen def. ah ñu xam ne suñu wërsëg la rek. ah bon. waaw. Ah boobaa dañuy xam ne loolu la ñu yàlla wërsëgal. ok euh, dama bëggoon xam ñaata centimètre la góor war a yor pour mën a satisfaire jigéen ci kaw lal. <laughs> ñaata centimètre dix huit. dix huit waaw ah, c'est le moins dix huit. dix huit pourquoi. ah parce que moom mooy taille normale bi quand même. mooy boo ma ko doon woon solo dix huit. ah à part oh. mais bon je pense que ak ak nu tôt comme peut-être la taille compte mais d'autres disent que la taille ne compte pas lu ak ni comprendre même si c'est long court ça dépend de yow ni satisfaire est-ce que bon je sais pas sais ndax bu ndaw baax na wala baax. aw xam nañ non bu ndaw moom kenn bëgg ko lu même bu dul ci cadre boobu mais lu ndaw kenn bëgg ko. comprendre nga mais lu nekk rek ak yow ni nga koy gérer surtout bu fekkente ne yaa ko moom yow miy góor war nga xam ni ngay doxalee ba satisfaire sa jabar waaw. donc ça côté dimension. bon côté dimension tamit mënu ma ci prononcé wul. non man franchement parler mënu ma ci wax dara te aussi xaw ma ci dara franchement parler. yow mënu ma ci wax non.